ñu dëgmal mooy mawludu nabi looloo tax saa yu jotee ñu ñëw fii comme ni ko jullit yëpp defee comme ni ko tijaan yëpp defee ñëw ti Tiwaawan nuyoo si ziyaar si rot si ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkal bi njabootu Seydi Alaaji Malick Si ñëw wax leen ni lii ñuy def ñun ñëpp ko bokk lii ñuy wut ñun ñëpp ñoo tax ñu di ko def ñaan yàlla yàlla matal lépp mais balaa loolu ñu nuyu suñu wéyjur suñu kilifa muy Serigne Babacar Sy Mansour mii xalif général comme ni ñuy yàlla na yàgg te lii mu sumba lii muy def lii mu taxawu ngir yoon wi ngir lislaam bi ñuni yàlla na fekke lépp yàlla bu mu wuute dara yàlla na lépp a mat te mu fekke ko te teewe ko